Oustaz euh, moi je suis très compréhensive à l'égard de mon mari mais le moindre sou qu'il qu'il a il l'utilise pour les jeux de hasard ay ay ay jeu de carte ay euh, jeu de hasard mooy lan naka lañ koy waxee encore euh, foofu xaalis waaw mooy wure xaalis quelque chose comme ça donc moom nee na jëkkër ji xaalis bu mu am rek da koy utiliser ci jeu de hasard yi quelle est la position de la religion sur ce sujet nee na moom day comprendre borom këram waaye euh, xaalis bu mu mënti am da koy utiliser ci euh, ci ci ci wuure yooyu. Euh, Pape xam nga carte moom. Hmm. dafay delloo kër ginnaaw. carte te taxul nit am. Hmm. carte xaalis. carte xaalis. carte xaalis moo tax alquran teel koo tere moog yemu ca boole yëpp innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijisun min amali cheytaan tubaab bi ñu nawloo sax da koo tere ndax nee na boo demee ba nekk ci addict mën na indi ay gàllankoor mais Pape daf lay indil problème da ngay gis ku liggéey ba weer dee nga fayeeku ci ngoon mhm. midi mi ngi la fekk nga yor deux cent cinquante am na ci ay xale yuy euh, sàcc xaalis di ko dugal ci euh, ci jeu de hasard balaa dix-huit heures mhm. nga perte lépp ci carte xaalis te nga bàyyi ko du yomb. parce que bii gañ bii perte moom fu mu am alaaji pap ah, ah. yenn saa yi da dal ci som xam ne da nga naan dootuma ko bàyyi. Mm-hmm. waaye yenn saa yi it dana la yóbbee. Mm-hmm. nga dem ba jël say takkaayi jabar wala ngay jël matériel boo amoon mu lay jariñ nga jaay ko ndax carte. lu war jabar ji moom. jabar ji li ko war mooy mu waxtaan ak borom këram. Mm-hmm. delloosi ko. xamal ko ni kat maa ngi lay muñal maa ngi lay suturaal alaaji pap am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi suturaal seeni borom kër. delloo si xelam waxtaan ak moom parce que am na loo xam ne waxtaan mën na koo saafara. xamal ko ni kat li ngay def lislaam bëgg ko. te alal ju lew la yàlla wax ni ñuy sëy nañ koy dundee. te alal jii ngay indi ci kër gi lewul ndax ci kart nga koy gañe waxtaan ak moom. xëy na yàlla delloo si ko. te itam ñaanal ko yàlla alaaji pap am na loo xam ne bu dalee ku la jege. boo waxtaanee ak moom ba pare. saa yoo jullee ñaanal ko yàlla. fexeel yàlla soppi ko mm-hmm. am na jikko yoo xam ne nit dana ko amee mm-hmm. pap nit di ñaan ba jikko boobu soppee da ko war a wili pande wala déedéet bu ma ko wili pande alaaji pap ok ok nañuy suturaalante pap mm-hmm, xam nga génn ci mbedd mi di wër fu ne naan sama jëkkër day carte sama jëkkër day carte saafarawul dara ñaññi yu bari moo saafarawul dara am na jigéen ñoo xam ne ñoom dañuy xëy ñoom fajar la ñuy xëy dem toog seen ay xarit wër leen ñuy euh, raconter seen vie wu jëkkër. mais looloo am looloo bari pap gaaram place yi ñoom fajar la ñuy xëy. pap gaaram place yi seen càmmin yeeg seen xarit yëpp wër leen. groupe bu whatsapp bu nopp sa jëkkër yii nopp sa jëkkër yii groupe yii am na bu ñu tuddee ano ci internet bi ano. pap am na ñoo xam ne bu nu xëyee li nuy waxtaane mooy li ñu séq ak seen borom kër. c'est incroyable. c'est kii naan boo essayé bii. <laughs> kii naan ba ma ko essayé kii naan nelawuma kii naan ay yuuxu laa fanaanoo eh. pap waxtaan yu ñaaw yooyu ci ay jullit loolu hmm. jaaduwul jaaduwul kay ku ne na suturaal borom këram a jaaduwul ah? wallaay jaaduwul yenn saa yi dañu koy waxtaane jëkkër ji moom du yëg lu xew day wàcc di télli télli di romb hmm. fekk ñu ngi koy xoolee bëtu yow démb ñu ngi la koy xoolee kay <laughs> Fall dama bàyyi alors dernière question bi laa bëggoon ñu wone euh, mais kee moom waxtaan ak jëkkëram rek moo ko moo ko. na waxtaan ak moom. Mhm. delloosi ko. très bien xamal ko ni lii nga nekk yàlla bëgg ko. Mhm. amaana bu ca saxee yàlla mën na koo sob macha allah yàlla na yàlla.